ci wàllu politique nu laaj rek bala ñuy tëj noo gisee ku mel ni usmaan Sonko ak révélation bi mu indi. du ci taxawaayam ci dëkk bi ni ko ndaw ñi bëggee ni ko nit ñi toppee. sa gis-gis ci moom. <laughs> c'est ah yéen <laughs> ah booba ñu waaye yéen da ngeen bëgg ñu jël si moom wala la. <laughs> dañuy laaj rek sa xalaat gis-gis gis nga nag il faut prendre des choses pas difficiles. Mm. Ousmane Sonko c'est un Sénégalais bon temps c'est un vrai Sénégalais. Mm-hmm. c'est un Sénégalais. ñun ñëpp ay Sénégalais lañ. Mm-hmm. pour l'instant maa ngi dégg ñuy coow. Mm-hmm. ñii di neexal président ñii di wax ay troisième mandat di di di. mais est-ce que moom wax na ni day dem troisième mandat ñi wax waxu troisième mandat est-ce que xam nañ lan moo nekk ci constitution bi. mais dafa commencé poser moom ah. waaw mais est-ce que yow liir nga constitution bi li ñu wax. constitution bi est-ce que sept ans boobu ñu def. mais pas bi bi muy dem cinq la fi bàyyi non. Mm-hmm. sept boobu ñu def est-ce que bokk na si mandat bi mu njëkk a def waaw. Ah. de moo xaw a lënt ci xel yi. waaw loolu nag ngeen war a dem di jënti yéen gëstukat yi ba pare naka nag yee eh, lii ci la bokk amoon droit bokk bu fekkee ni niñ tënk constition bi dafa war bokk kenn mënu tere mu dem day dem léegi nag que gañ dafa du loolu dañ naan ko bokkal ñi nga xam ah, kon dafa fekk ñu ñàkk fayda rek yow tam yooyu dañuy wax rek ah sëñ bi ku deful dara kenn du la tëj li ma jàpp man ku deful dara kenn du tëj man le problème de Ousmane Sonko vraiment xaw ma mm-hmm. mais lu tax ba tey tëjuguñ ko y problème